salaat lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absa wa safar falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wasala abada alalazi bihi lana al uda bada saydina muhammadin wal ali wa sahbihi zabil nawadil wali إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي asalaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen bëggee lool di ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen émission Asnal Khadim ñi ngi ziare euh, waa diwaanu RTT TV ci njiital sëñ Mouhamadou Seck sëñ Khadim Soumaré di ziare soxna Juma soxna Aji suñu technicien yu xarale yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal yàlla yokk seeni i xéwal sëñ Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Sadiou Touré ñu ngi koy ziar bu baax di ziare sëñ Abdoulaye Touré sëñ Mame Gor la ci Ndar ñu ngi koy ziar di ziare njabootam di ziare xame yëpp rek incha allah bi jaay rasulillah ñu ngi siyaare tamit sëñ Abdou Jonn ci fayu bu baax a baax di ko siyaare moom sëñ sa sëñ Saaliwu Fay ñu ngi koy siyaar bu baax di siyaare soxna Xadi mu ndaw ci Kidira ak euh, soxna Yaasin Kase ci foofu ci Mambilor tey nag mbokk yi ñu ñëw seen émission Asnal Xadim tey ñu bëgg ñëw rek waxtaan ak yéen ci jaar jaari Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul ndax moom dafa jëloon léppam rek jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ay yonent bi jaral ko lépp nag jaral ko lu ne waaw lépp lu ko lépp nattu yeeg mettit yeeg coono yeeg yépp li ko waral loon rek mooy bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu jaral ko mu gënal ko lépp tamit waaw ndax moo tax mu déggoo fi mu naan suturi fi daarayni madri muhammadan bi nazmi wa nashri wax wa ni'mal suturu nee moom sëñ Touba nee na suturaam ci aj ah, ci ñaari kër yi di àddina ak alaxira mooy tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu mooy suturaam waaw ndeysaan nag euh, bi nazmi wa nashri waaw mi ngi koy tagge nag ci ay xasid yoo xam ni da koy ci ay waylay lay doon ak yoo xam ni nag ci ay wesar lay doon waa wax wa nixma suturu nee na yonent bi mooy gën gi sutura sutura daal buñ koy wax mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daal loolu la defoon muy suturaam bëgg yonent bi di ko woy di ko tagg di ko kañ loolu mooy suturaam suturaam suturaam wa dëgg mën naa xusuuri qalat wal a'lu ani tafaraqat li madri ladi an gulmadihu lxasiru nee na nag euh, njabootam tasaaroo nañu wax dëgg yàlla ngir lan ngir bëgg gi tagg yi muy tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nee na loolu rek moo waral mu tasa mu mu wéet mu euh, njabootam taqalikoog yoon taal ay taalibeem ay mbokkam te loolu lépp rek li ko waral mooy bëgg gi mu bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal moo tax ni xururu wara xara nasara bi kaydihi wa zannu zunuuna wa zunuunu xuruuru nee na wax dëgg yàlla nasaraan yi euh, yi nga xam ne ay waraakoon lañu ak i bu nekk boroomi pexe waaw xam ne seen lépp rek mooy fexe nu ñu jëlee bakkanam rek ba faat ko rek nee na seeni pexe moy na te am nañu gàcce am nañu rëccu ndax li ñu bëggoon amuñu ko seen pexe yi dara jàllu ci ndax yàlla suñu borom mi nga xam ni mooy borom lépp àndul ak ñoom moom Cheikh Ahmadou Bamba moom la àndal moo tax yàlla musal ko aar ko waaw lu ne nag la daj nag lu ne daj na ko nabaxtukum maran ala kaddi bada euh, di xabla an raarida mu abada suñu boroom euh, euh, teg na ma natt yoo xam ni wax dëgg yàlla gémmiñ mënu koo addu waaw làmmiñ mënu koo addu ndax natt yu doy waar la waaw ndax nee na daj na lu kawe lu mitti waaw coono yu tara tara tara tar lu jiitu muy am ngërëmal yàlla waaye loolu lépp nag euh, xamoon na ni dana dajeeg moom ndax euh, avant muy sóobu ci liggéey bi ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ni ko mbir mi du yomb ndax ñi fi jaar bari nañu fi jaar bëggoon euh, maqaama bi ak daraja bi waaye biñ leen wanee natt yi dañoo dellu ginnaaw waaw mu mu jaayante waxanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa xamal ko ni ko Euh, am naa jom ji am naa fit wi bu ruu gi daal wadd rotul rotul rek sama jom ak sama courage may na ma ma ma yeenu natt bi waaw wax dëgg yàlla moo tax euh, euh, moom nag xamoon na ni mbir mi du neex mbir mi dina mitti lool wara mu ni shuhuri wa ayaami gadan li shawahidan nee na weer yi ak bis yépp nee na Euh, bu ëllëgee danañu seede bëgg gi ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéey bi ma koy liggéeyal waaw danañ ko seede bu ëllëgee bi kaw ni Abdullahi nee na weer yi ak bisi yi dinañ seede ni man maay jaamu yàlla bi maay Abdullahi waaw te tamit maay xaadim rasulillahi maay jëwriñ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kon nag loolu lépp xamoon na ni. dana ko dana dajeeg moom tom bi mu ñëwee ba wax dëgg yàlla biñ ko indee ndar euh, nafaadi xayrillaahi qablu fi ndari bi ahli badrin usudul kadari ah, ah, waaw waaw na euh, sëriñ bi nee na foofee fa la nekk euh, li desoon ci weeru safar weeru safar mooy weer wi sëñ Tuubaa génnee dem ci géej gi ngir liggéey li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, muy fukki fan ak euh, ak weeru gàmmu wépp ba ca bisu bu mujj ba muy alxames foofee la mottalee nee na Euh, nos gi nga xam ni moom la doon nos di woy waa axlul badrin ndax xam nga sëñ Tuubaa taalif na téere bu rëy de ko asmaawul axlul badrin maanaam di di tagg di ndokkale euh, di leen di di di kañ euh, ñooñu nga xam ni ñu àndoon nag yonent bi ci Ghazwatul Badr xare Badar di ko jàppale ndax soñ suñ waax tukkeem bi yëpp ci ndaar Ndakaaru ba Gabon ak fi mu jaar yëpp Euh, euh, euh, kii bi waa Axlul Badrin ñoo ko gunge ñoo àndoon nag moom di ko jàppale ci lépp gis nga bi mu ñëwee tund jeewel ñoo taxawoon wax dëgg yàlla di ko garder ba tubaab bi jaaxle waaw waaw bi ñu ñëwee tamit foofu ci Gabon bari na barab yu bari yoo xam ni tubaab yi sax gis nañu waa axlul badrin am na bi ñu ko takkee ci garab ba fukki nit ak ñett ku nekk braqué sa arme sa fital ngir tiire tiireendoo keroog bi ñu tiire waa axlul badrin lañu gis ñu yëg seeni fas nekk ci kaw jaww ji yor seeni fital ak seeni jaasi kon moom tukkeem bi yépp dafa ànd ak waa ahlul badrin muy asxaabu rasul yooyu nga xam ni suñu boroom moo leen gërëm waaw kon nag moom nee na foofu ci ndar euh, daal wax dëgg yàlla euh, daj na fa daj euh, coono yu méttee méttee métti waaw waaw na bañ ko teewalee nee na fa seen kanam Euh, di wax moom maanaam tubaab bi bi ñu ko woowee ci conseil privé bi ci euh, gouverneur bi mu ko woowee euh, kilifa gi tubaab bi tubaab yépp ñu ngi taxaw mu wéet lool amul kenn ku koy wéttali waaw xam nga gis ngeen mbokk yi liggéeyal yàlla ni mu méttee booy liggéeyal yàlla danga nga ciy wéet lool waaw ñéppal kenn du la jege ñéppa lay bàyyi waaye boo amee yàlla nag ñëpp dinañu ñëw ànd ak yow ba Sëñ bi muy liggéey liggéey bi amul kenn ku ko wéttali fa wéetoon lool waaye waaye nag moom dafa wéttalikoo woon yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa axlul badrin déggoo ma naan rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa asxaabahu fi lbagri in aduru waaw nee na moom tukki bii mi ngi ci ànd ak alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak asxaabul rasul ñoom la ci àndal déggoo sax boo demee ci téere bi sax mi ngi naan asiru mahal abraari hina asiru wa zanna al hida ani hunaka asiru nee na moom bi muy dox di dem ci géej gi mi ngi ànd ak na euh, ànd ak tànneefu suñu boroom yi waaw maanaam yonent yi ak saaba yi ak ñu baax ñépp la àndal waaye nee na tubaab bi dañoo njortoon ni moom dañ koo tiye dañ seen prisonnier la te xamuñu ni loolu sabab la rek ndax yàlla lim ko lim ko lim ko dencal ak lim ko dig ci liggéey bi muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi faw faaw boole ko tubaab bi pour tubaab bi ah pour mu am sabab. bu mu mën a liggéeyale yonent bi moo tax mu boole ko tubaab bi mais tubaab bi ñoom dañoo jàppoon ni moom dañ koo téye seen prisonnier la léegi mu ni masiri maxal aqyaari lillahi bi nabi wa ma li xayri laahi xawnu masiru waaw ndégga mu ni bi may dox maa ngi ànd ak tànne fi suñu borom yi yasiru bi al jazbu allazi qaada li ila karimin alayhi ma arumu yasiru waaw moom euh, euh, yoon wépp tànne fi suñu borom yi la àndal nee na nusuuri wa taayidi wa ifzi la dal xida min al waasiqi al waraabi fawqa nasiru dégg nga li wax nee na ndimbalam ak dëgër ak dëgër laayam moom sëñ Touba nee na ndimbalam ak dëgër laayam ah ak tamit euh, wattu ak ak ki koy wattu ah ci i noonam mooy tubaab bi rek na mooy minal waasixil wahabi mooy ki nga xam ni mooy borom mayaakoon bi nga xam ni ay mayam dafa yaatu amul fu mu yem. amul fu mu tàmbalee waaw fa huwa nasiru nee na kooku nag mooy ngën gi ndimbal kooku mooy suñu borom subhanahu wa taala yàlla euh, ndimbalam amul fu mu tàmbalee waaw ku mu aar nga aaru wa man yatawakkal ala llahi fa huwa xasbuhu suñ tuwaa nag léppam suñu borom la ko joxoon moo tax yàlla téyel ko ko waaw ndeysaan mu ni mu ni amiri la dal sayri wa mukshi qadiman lahu wa huwa alqadimul yamiru nee na ak dalam akub doxam lépp ah nee na ah, jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ni mooy wasilaam mooy ki nga xam ni mooy royukaayam waaw mooy référence am waaw mooy kilifaam mooy sëriñam mooy léppam waaw nee na nekk nag xadiman lahu nekk nag liggéeykatam bi gën a kawe waaw nekk ab serviteur nekk ab jëwriñam wax wa qadimul yamiru nee na kooku nee na nag euh, euh, suñ boroom nee na su yonent boobu nag moom lay liggéeyal ci léppam nag ujuuri alal waxa bi jalla takaruman nee na nag suñu boroom may yim ko may fay gim ko fay ah yàlla mi nga xam ni mooy wahaab mooy maye moo yor lépp nee na fay na ko ay fay yu kawe yu màgg yu kawe waaw ak yu tedd tedd tedd waaw ala xidmatil muxtaari ci ci liggéey bi muy liggéeyal yonent bi nga xam ni moom la yàlla tànn wax wa ajiiru nee na nag euh, euh, loolu mooy pay pay gi ko pay amul pay goo xam ni mus naa am kuñ ko fay waaw kon nag euh, wax dëgg yàlla euh, xamoon na fi mu jëm xamoon na tamit li mu bëgg xamoon na tamit li mu doon wuti moo tax déggoo mu naan li kun bi kun sarmadan wajal masriza jawfal fara lil wara mishlul maqarini waaw suñu boroom na nga def sama dox bi may dox di dem ci géej gi ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu nekk kado bu rëy kado boo xam ni mi ngi ko tuddee jawfal fara jaw fara mooy euh, ñanaw li gën a rëy ci àdd àll bi képp kuy rëbbkat rek bala nga boo euh, moom ngay mébét dajeel pour jam ko ndax boo ko jamee mën ngaa wéer say gànnaay euh, ab euh, temps bu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax danga mën a xéwlu dootoo soxla ndawal Sëñ Tuubaa nag nee na tukkeem bi kado bu rëy bi mi ngi ko tuddee jaw falfara ñu ni ko nag ñan nga ko jagleel sa kado bi mu ni maa ngi ko jagleel képp koo xam ni mbindeefu yàlla nga lil wara mishlul baxaar yi képp kuy mbindeefu yàlla rek nee na kado bi yow laa ko jagleel kon nga gis ne Sëñ wax dëgg yàlla dafa demoon rek ngir liggéeyal mbindeef yi damaa jëlale sax doomu aadama mais képp ku yàlla bind rek nee na bokk nga ci ah bokk nga ci kadoom bu rëy bii di euh, euh, euh, di kadoom bu rëy bii nga xam ni mooy liggéeyal bi mu demoon ci géej gi di ko liggéeyal ku tedd ki sallallahu alayhi wasallama kon moom loolu rek moo ko indi woon gis nga bi mu nekkee ci géej gi sax mi ngi naan ijaar rujuuxi ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamqil xalqi niiraana yow sama borom na nga def euh, rujuuxi sama dellu bi may dellu ila xawmi ci sama peuple ba xawmi mooy peuple nee na na nga def sama dellu bi euh, ila xawmi ci sama peuple ba euh, saxaadata naa na nekk ci ñoom ak texe ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp lañ texe waaw wal takfina yawma jamqil xalqi niiraana waaw bu ëllëgee nag yow sama borom Euh, na nga leen fegal ñoom ñépp euh, safara bis bi ngay dajalee mbindeef yi ngir atte leen ku ci nekk euh, mirit ba mu am nga jox ko ko nee na bis boobu képp ah, ñoom ñépp da leen da nga leen musal ci sawara waaw ah, ñoom ñépp bu ci kenn seen sawara bis boobu ngay dajalee bindeef yépp ngir ngir àtte leen ñoom ñépp da leen jéggal Euh, tàbbal leen àjjana waaw bu ci kenn seen sawara wa da nga mën a sax yaa malikal mulk yaa man jalla an xawadin irham jamia alwara yaa xaadiyan radaa ah yow buur buur yi ah yow mi nga xam ni kawe nga lool ah, kawee nga màgg nga ah, ba aw ba yow sax ak fayantoo yow xajoowoo loolu ndax weesu nga lool yow sama borom na nga yërëm képp koo xam ne rek mbindeef la tu vois la wax képp ku yàlla bind rek lépp lu yàlla bind rek na nga ko jéggal waaw ah, moom xol bi dafa rëy ndeysaan moo tax muy ñaanal eh, eh, képp ku yàlla bind rek damaa jëlee la doomu aadama mais képp ku yàlla bind rek bokk nga ci liggéey bu réyam bii waaw kon nag bokk yi eh, ñu gën a sant yàlla ndax xam nga gis nga keroog bi mu nekkee ci néegu ndakaaru ba biñ ko jëlee ndar mu eh, bisu alxemes moo timis di waaj a jot muy jàpp di waaj julli ñu jël ko dugal ko ci néeg bu xat ba néeg boo xam ni sobe lënd maay ba ràbb ya fa nekk di jame kenn mënu fa julli ndax mënoo sëgg pour julli xat na xataay boo xam ni ak ràbb yi ko wër kenn mënu faa julli keroog jàng na fa ne na suratul baqara ak ali imran nee na néeg booba ku ne ñëw na fa képp koo xam ne ab sang nga tànneef nga moo xam yonent nga wala ku baax nga ñëw nga fa ngir bëgg ko ni ko dama bëgg laa génn ci néeg bi mu ni la bàyyi mag sama boroom sama boroom moo la ëpp yërmande ci ci moo moo moo la ëpp yërmande ci man waaw suñu boroom yërmande ji mu am ci man moo ëpp yërmande ji nga am ci man bàyyi mag sama boroom nee na keroog foofu way juróom bu baax wa soxna jaaritulaay busu radiyallahu taala anha ñëw na fa di ko defal ah di ko defal bu baax a baax foofu lay wax naan iza zakartu zalika al mabita wa zalika al amiru wa shubuta taarat ila al jihaadi bil armaaqi nafsi walakin zabba an il maaxi waaw ah, bu ma fàttalikoo wax dëgg yàlla Euh, nasaraan boobu nga xam ni mooma euh, sama guddi googu nga fanaan ci néeg bu xat boobu ak sobe ak ràbb ya ah, ak xataay ba ak lëndamaay ba ca néeg boobu ak ak ba nga xam ne moom ma dugaloon ca néeg ba damay bëgg takk ji xaar waaye nee nag walakin zaba anil maahi waaye saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam kooku nga xam ni mooy euh, wasilaam kooku moo ko tere moo ko dàkku waaw kon moo gis sax bi mu génnee ci néeg boobu bañ koy waaj euh, dugal ko ci gaal gi ci bato bi pour mu dem euh, bu waaj koy yóbbu mi ngay wax na alamani rahmaanu fi safina bi annani qadimu zil madina waaw nee suñu borom moo ko xamal ci gaal gi ci bato bi ni ko yow yaay jëwriñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw li xadd bi kawniya abdan yaqfiru zanba wa qaadimil xaadimal muxtaar baxra ma yomba ah foofu lay waxee ci sa ca maa yomba sax naan yow géeju maa yomba gi na nga seede ni man mii maay jaam bi nga xam ne yàlla ci man lay jaare jéggal képp koo xam ne mbindeef nga te na nga seede nag ni man mii maay jëwriñu sayyidina muhammad sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama waaye nag loolu lépp mu daj ak tamit euh, coono yooyu yëpp te lislaam rek tax te amul kenn ku ko wéttali woon amul kenn ko ànd ak moom di ko jàppale xanaa yàlla ak yonentam ak asxaabu rasul ah, ak alquran ji mu ni moom la àndaloon amul keneen koo xam ni ñëw nga di ko dimbale ci liggéeyam boobu mu def ci juróom-ñetti at yu manqué tuuti ah jixaat jixaat ju jihaad joo xam ni mosuñoo gis ci lislaam koo xam ni jihaad na jihaad ju mel noonu moo tax mu ini inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan qadiman muhayminu shahidu ah jihaad naa jihaad ju rëy de ñu ni ko noo jihaate ndax yow yoroo ay gànnaay yoroo fital yoroo ay canon wala yooyu ak ay jaasi mu ni dama jihaad ci ragal yàlla ak ci xam-xam ci xam ak ragal yàlla ci laa defe sama jihaad ci la amee ndam ci la wax dëgg yàlla yàlla fal ko nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam falahu alal baraya samadu ah sangum nit mindeef yépp muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ma jiital ci mboolem lu yàlla bind mu demaat banaan baaxa rasulillahi kullal anbiya alayhim aska salaamay rabbiya bi xurbati ashra sinina lil qidam xaalisatan lil wujuhi bil qidam nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko nga xam ne mooy wasilaam moo ko puukare woo ci kanamu yonent yépp ci aadama ba isaa di mille prophètes mu ni leen royal leen ma euh, si Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, di ko mettre en exemple devant tous des prophètes réunis kooku mooy Cheikh Bamba mu dem ba naan min al wara baqil qadim adamahum bi anniya abdul qadim dem na ba naan yajudni inda malikin muqtadir ah, wax na ko nee na bépp wàlliwu lu mu gaawantu gaawantu fa sama borom la may fekk waaw fa la la may fekk fa fépp nag lu mu gaaw gaaw rek na bépp nitu yàlla bépp wàlliwu yàlla lu mu gaaw gaaw fa sama borom damay fekk ke jour du nii inda malikin muqtadir waaw kullu waliyin bi di jinaani yaxtadir yab yabtadir kon nag sëñ Tuubaa gi noonu mbokk yi euh, loolu lañ leen indiloon tey seen euh, émission bu mag bi di euh, Asna Khadim muy tur bu rëy nag Asna Khadim mooy kii le serviteur privilégié du prophète loolu mooy Asna Khadim ndax sëñ Tuubaa moo ko waxal boppam nee na mooy Asna Khadim mulkul xaali baaqil Khadim jaalani Asna Khadim man lahu fadlu yadum wa saanani fi qadami nee na yàlla mi nga xam ni mooy kawe ku kawe ki ah, ba faaw di koo xam ne du fi jógee ba mukk moo fiy des ba faaw mooy l'éternel ki nga xam ni mooy le premier alxadim nee na kooku moo ma nommé moo ma def may euh, asna xadim le serviteur privilégié du prophète dina moo ko wax moom moo ko bindal boppam euh, kenn waxalu ko moom fu mu jaar rek ak lu mu am ci digganteem ak boromam rek bind na ko waaw moom moo ko waxal boppam ni mooy asna xadim kon nag euh, wax dëgg yàlla te loolu daraja boobu la doon wuti moo tax mu daj li mu daj ndax euh, li mu daj mu soo gis ci àddina ku ko daj képp koo fi dégg rek am na ku mu àndaloon mu koy jàppale mais moom rek ngay gis mu ànd moom kot ànd ak ñoo xam ni ay nit yu weex lañu ah, yor ay ay pexe yor ay puissance yor ay armes yoo xam ni yu doy waar la ah yu xarale la ah ànd ak moom jëmmam ju tuuti jooju durant des années et des années ah mu ne ci àll bi di tawte amul fu mu dëkk di dëkk ci ay ay ci rab yi ak i gaynde ah kooku sëñ Tuubaa daal kéemaanu yàlla la daal waaw baana li kulli man billaaya kaw nii li xaaliqil baraaya aaya képp ko am cër ci yàlla rek xam nga ni man man laa ju bàyyi ko ci yàlla te delluwaat ci yàlla daana li kulli man lahu maqul ana wasilati wa rasul nee na képp koo xam ne boroomam xel nga am nga intelligence intellectuelle xam nga ni man sama digganteeg sama borom kenn doxu ci amul kenn ku ci mën a dox ku dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi loolu moo doon seen émission Asnal Khadim kenn ko noon defal di seen xarit seen mbokk taalibe Serigne Babacar Mbaye al oustaz ñu ngi leen di ziare di leen bëggee yàlla nañ yàlla defal wér ak gudd fan te saxal ñu ci liggéeyat sëriñ bi saxal ñu ci jaamu yàlla saxal ñu ci lu baax saxal ñu ci lépp loo xam ne rek dina mën a faggu yiw ndax kat taalibi moom mooy isil muridina la yuridu abada ghayra rida rahmanu xaysu qasada taali murit mooy ki nga xam ni foo ko fekk mi ngi sàkku ngërëmal yàlla kooku mooy murit moom du am temps il n'a pas de temps foo ko fekk rek mi ngi sàkku ngërëmal yàlla ci liggéeyukaay ba buy lekk sax ci ngërëmal yàlla la ciy fas buy naan noonu buy dox loolu lay xalaat ci xolam ak ci xelam léppam mooy ridwanullahi akbar moo tax sëñ Tuubaa ni murid daal mooy ki nga xam ni foo ko fekk mi ngi sàkku ngërëmal yàlla murid nag mooy l'aspirant à Dieu mooy ki nga xam ni yitteem yépp mooy dem ci yàlla rek waaw loolu mooy murid waaw mooy aspirant kon wa axiru daxwana an alhamdulillahi rabbil alamin bi barakati allahuma salli wa sallim wa barik wa karim ala abdika almustafa wa rasulika murtada wa shafiika almubtaga sayidi ahli ardi wa sayidi ahli samai sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min almizani wa muntaha al ilmi wa mabla xarida wa adada niami wa zinata al arshi barke cheikhul xadim askay sëriñ tuuba cay sëriñ tuuba salaatu lazi fi kulli sayrin wa fi zafar hamani ala mahin mal absar wa sabar فلاهي بكوني عبد ربي خديمه